voilà asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ni yéenay saxoo di seetaan saa su nekk yoonu ndam TV tey nag ngeen àndoon ak nag la sama mita ci affaire bu bees tàq ñu di ko wax nag seen émission wane ma bi nga xamante ni nag seen fierté mooy suñu yite kon nag ma ciy ànd ak yéen seen xarit seen rak seen mag seen soppi saa su nekk di leen jox li ci yéen képp koo xamante ni nag acteur de développement nga yaa xam ci wàll booy yëngu moo xam menuisier nga moo xam mécanicien nga yaa xam coiffeuse nga yaa xam théâtre kat nga activité bu mën ci yëngu rek ñun pare nañ ànd ak yow ci suñu biir émission kon nag sama gars yi bu leen ko kenn nettali à très bientôt ci bis Yom Ndam TV ngeen ci ànd ak système Mouta